asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokku internet yu seen football TV nuyu naa leen bu baax a baax euh, ziar leen tey ne damay ñëw wax si Aliou Cissé ak Hervé fii ci réew mi ne boo xoolee ñaari tur la ñuy faral wax Habib Beye la ñuy wax si jamono bii euh, itam euh, Hervé Renard maintenant nag bëri na ay entraîneurs yu ñu wax ah ñoo ngi wax Youssouf Dabo mais boo xoolee tey ji man bu ma jëlee sama exemple ma xool vidéo yi ma def yëpp ma xool sénégalais li entraîneurs yi ñu ëpp ñuy wax on parle de Hervé on te parle de Habib Beye maintenant nag il faut ñu tontu ñenn yenn sénégalais yi di wax ne la fekk ñu wax ne Hervé Renard dafa ñëw complexe la wala ñu nañu bu ñu nekk sénégalais lu tax africain xam nga complexe lu kenn xamul man dama jàpp ne Hervé dama ko jël comme un vrai sénégalais xam man noonu laa ko jëlee lu tax dama jàpp ne yow boo boo nee boo demee Zambie gagné fa trophée nga dem euh, comment dire Côte d'Ivoire gagné fa trophée nga ñëw fii Sénégal am fi am fi jabar di jàng wolof sa yaay bi ñëw fii à à chaque fois Sénégal man sénégalais laa la considéré aussi tamit du tubaab pour tubaab xam nga fii la bir no masi mi xamante dañ ko bëgg loolu yaan ko yàlla yërëm fii nañ ko suul donc kooku kooku français la mais finalement sénégalais yoo dem ba boole ak seen bopp man ñu bëgg ñu wax xam nga yëpp ñëpp sénégalais boo laajte jàpp naa ne euh, boo posé question ndax sénégalais nga bëgg mu jël trophée wala benn tubaab nga bëgg mu jël trophée dana sénégalais tubaab yi xam Sénégal yàlla may nañu leen ci côté yëpp nag politique ak lépp pàcc boo jël si Sénégal làmb ak leneen ak leneen jàng ak lépp yàlla may nañ fa ay borom xam-xam fii Sénégal am na ay entraîneur yu xamante ne ay borom xam-xam lañ mën nañ leen jox affaire mais loolu ñu du suñu rôle léegi nag bu ñu gisee benn entraîneur bu xamante ne looy nekk tubaab tubaab nga bëgg ñu ñun dañ lay bëgg te ba pare nga def say preuve bu question lañ lay da bëgg rek ñu bëgg la lañ Hervé Renard moom moo taxaw ñëpp di ko dégg mu ne man dama bëgg entraîner Habib Beye bëgg naa entraîner Sénégal loolu moo ko wax kooku aussi moom ba pare discuter ak moom bu xaalis lay ki lay ngay amee problème Arabie Saoudite la nekk xaalis bu ñu jeex la ngay fay donc ñëwuñu fi parce que dañu complexe wala dara Aliou Cissé ñun dañ ko défendre défendre ba sonn man franchement bëri na ay vidéo yu xamante gars yi noonu dal sama kaw mu ne Aliou moom ay sept défaites rek la am sept défaites la am ñu ñëw équipe nationale du Sénégal ba tey yóbbu nañu coupe du monde euh, dem nañu ba final coupe d' Afrique coupe d' Afrique dañu ñëw rek qualifié dañu ñëw génn loolu yëpp dañ koy tàcc mais six ans la nekk Zidane mënul nekk Real Madrid ñu di ko ñu di ko kii euh, critiqué xam mu jël ñetti di champion ak joueur bu mu doon ak li mu def ci football changé Real xaar kan mu mais nit ñi dañ ko doon gis ngeen ni mu ñëwee jël championnat bi ren nii am na quelques matchs yoo xamante ne commencé am problème ñu bëgg ko critiqué jamono bi yéegaal nañ ko si kaw donc euh, Thomas Tuchel mënul Paris nekk Paris Saint-Germain seen équipe ba tey

je pense que loolu euh, nekk na benn affaire bu xam dama dama jàpp ne xam ñoom ñuy commencé dégg quoi pas man kese mais sénégalais yi moo tax may wax quoi de manière générale sénégalais yi ñoom ñooy réclamé de ñoo gis contre Massi Eswati ñu mer ñoom ñëpp amul kenn ko si kontaan euh, leneen loo xamante ne mën nañ ko wax duñ dañ ko exiger adjoint bi Régis Boiré boobu noonu muy dëkk France toog foofu mu ñëw fii Sénégal dëkk fi bu fekkee daf bëgg toog xam voilà quoi instant tegal nañ ko benn pression euh, et je pense que boo euh, ministre des sports bu demee ba toog wala fajar ñu ko wax Habib Beye c'est quelque chose Habib Beye nag xam naa ne jàpp naa ne ñu ngi naan jamono bi ku mel Angers la yor vu que mu ne dafa bëgg a jógee mooy entraîneur bu Angers donc ñu ngi wax Habib Beye pourquoi pas te Habib Beye dafa yàgg wax ne bëgg na doon sélectionneur mais entraîneur la gën a bëgg doon quoi euh, donc moom la ñuy wax ak Hervé Renard Hervé Renard je pense que c'est pas pour pour léegi nii on parle de après man bu may wax Hervé Renard c'est pas tout de suite je pense pas que Hervé dina bàyyi mm, Arabie Saoudite xam nga ak positif bi mu am qualifié coupe du monde ak yooyu yëpp bëgg fa def dara que mu bàyyi ñooñu noonu te moom mu dem dëkk foofu noonu pour vous dire que ne je pense pas que dañoo nii léegi nii man Aliou Cissé li ma koy ñaanal sa football mooy suñu mooy li ñu bëgg mooy que Aliou Cissé yàlla na jël coupe d'Afrique man de loolu laa koy ñaanal coupe d'Afrique mu jël parce que moom kese bu gañee moom gañewul de man damay gañe kii dëkk Touba lay kii dëkk Sénégalais yi di commenté ne ay la bëgg complexé wu juste pour tontu ñeneen ñi xam na dañ naan non kii blanc la nangam naan Hervé Renard Sénégal la bëgg euh, Bruno Messi tubaab la woon mais Sénégalais yi Sénégalais lañ ko considéré parce que li mu ñu defal yóbbuñu ko du jumoon donc mais Hervé Renard boole ma ko si tubaab yi nga xamante ne naan non xam nga Sénégal lekk seen xaalis bépp xam nga ma taxawaalu fa ñu fay ma sama chèque ma dox sama dox loolu du loolu techniciens yi dañoo gën a aayante seen biir ne andal tay dañ fay dem xol ekibi gëna ngand ci ang anglais mais du ay eh, anglais ñoko yor bo jël chelsea nga jël liverpool nga jël manchester united nga jël arsenal ban anglais moko yor nañ waxante deug gaay nga bo demé real barça ana ana ana espagnol bi ana ana real zidane fa ne nga dem fele hollande moko yor nga dem Italie mais bon donc technicien bi yow gën a aayante du question euh, sénégalais sénégalais yi xamuñu dara mais ñoom sénégalais yi sax boo leen laajee digg guddi xam nga bu ñu waxee seen axulaay temps la ku si masul def performance di a aay Dabo am na ñu mu gën a aay ñu nekk fii wax kii rek non non kii presque da nga complexe kii quoi en benn affaire boo xam ne ko bëggoon def ma gis ne fédération sénégalaise de football euh, ministre Matar Ba ku nekkaa ngi wax Habib Beye keneen ak keneen et voilà aussi commentaire wax leen ma seen xalaat ak seen bis gis euh leen poser ben question Aliou Cissé cette défaite la am wax leen ma cette défaite yéen équipe la en commentaire ma leen fay xaar di leen jaajëfal di leen wax ba beneen sur Senfootball TV bye bye.